waaye balaa booba ñu yëgal leen ne màggalug sëriñ Seex mbakke moom sëriñ Abdul Karim taawu sëriñ Fàllu jàpp nañ ko samedi mu war a tolloog le vingt et un janvier deux vingt trois mu di ko amale ca Ndaamaatu Tuuba Ndaamaatu bëccëgum yendu rek lay doon sëriñ bi di ko yëgal ñëpp mbokk yi tey ñu dëkk ci réew mi rek dama gis ne réew mi itteel na nit ñi rawatina bu xew-xew bu tiis bu metti dalee ci kaw nit ñi ñëpp dañuy delluwaat ci sunu borom ngir wax ne ku nekk di vérifier sa bopp wala ñuy vérifier réew mi ne ku nekk na di ko jiiñ sa bopp diw sàngam la état bi la transport yi la ministère sàngam la nit sàngam la lu nekk ñu wax ko ku nekk ñu delloo ko ko dama jàpp ne mbir mi ku ci nekk danga ko war a wëndeel ci sa bopp seet ban responsabilité nga ci yor ci àdduna ak ëllëg boo taxawee ci sun kanamu sun borom ban responsabilité nga yor am réew nag ku ko bëgg a defar te fekk fa ay melo yu mel nii wala ay jikko yu mel nii jikko yooyu jàpp naa ne war nga ci veye dara waaye doo jéem a tabax réew mi ba réew mi nekk ci kaw wala mu àgg foo xamante ni te jikko yi jéemoo cee veye dara wala jéemoo ci dara jikko yooyu dafa mel ne nit ñi dañ cee kii tey boo xooloon lu mel ni xaste am na ñoo xamante ni xaste moom lañ jël maanaam xas as gor dammat ko wàññat ko lu ñaaw loo xamante nii rek dees na ko teg ci nit ngir mu yàqu àddunaam yàqu kooko dina ko jël di ko teg am na koo xamante ni moom loolu muy mécceem moom xaste ak daas aw làmmiñam loolu mooy mécceem am na koo xamante ni lan mooy mécceem mooy ñàkk wax dëgg fen buy wax ak yow sax dangay nga yëg ne kii du nit kuy wax dëgg dafa dem ba siiwee ko ba nga xam ne daanaka mun ko doon woo dañ koy wax musamatul kasaab moom lañ koy wooye am na suñ kilifa gu baax gu nekkoon fii si Abdoulahan mbakk dana man yenn saay nit dikk fii di ma wax sax ne ma di ma wax dara damay dégg eh, malaaka yi wax naa day fen de waxul dëgg de waxul dëgg nee na damay defe ne sax dégg na ko man damay rus sax defe ne dégg na ko loolu sax xam naa ne ci kiimaa ne xam nga nituk yàlla yenn saay mu jëkk-jëkk wax loo xamante ni sax feeñal ko du ko yëg sax waaye loolu bu ngeen delluwaatee ci am na koo xamante àddunaam bépp saaga saaga ndeyu jàmbur moom ndeyam mu bàyyi ko fële saaga bàyyi jàmbur saaga mooy mbiram maanaam saaga lay ubbee saaga lay tëje jàpp na ne aw saaga lu mu gën a màgg lu mu gën a jëm kaw rek moom mu ngi saaga te moo ne jikko yi yépp suñu borom da koo bañ xaste boo ko defee dañ laa war a dóor juróom-ñett fukki yar fen boo ko defee fen wi day jóg naaw ba aras mu ne man maay fenu diw ak diw doomi diw ak diw maa fen fen wi am na ñu wax sax ne day yëngal aras saaga dafa bokk ci loo xamante ni képp koo ko def bu dee bu doon sa soxna sax boo ko saaga lislaam mën naa tas say am na ñoo xamante ni amul kenn kunu jomba saaga ci seen làmmañ dama jàpp ne bi ñuy bind aw làmmañ di ko di la ca may ngay wax di xar sa làmmañ tudd yàlla moo tax ñu xar sa làmmañ waaye du wax ju bon wax ju ñaaw ndax loolu kenn dàqu ko kenn dafa am ñu ko jombale seen bopp am ñu ko jombale seen ndey am ñu ko jombale seen baay yow nag boo rusuta saaga wala rusoo fen wala rusoo wax ku ñaaw loolu nanga nga yëg ne saaga woo saaga nit mu faye ko mu ñàkk ko saaga saaga woo ko ko sa yaay nga saaga wala sa bàyyi nga saaga ndax ni nga amee bàyyi ni lan ko amee am na koo xamante ni moom métiem ci kaw suuf muy jëw boo ko wanee kanam di ñëw dalay jëw boo ko dee wanee ginnaaw di dem dalay jëw am na ko laajoon benn waaye ne waaw am na nit koo xam moom wan ko ginnaaw di ñëw wan ko kanam di ñëw ak wan ko ginnaaw lan moo ci gën a lan moo ci gën a sedd ci nit ki maanaam buy ñëw mi ngi lay jëw ba ni nga tooge boo delloo mi ngi lay jëw te jëw di fin ko màndargaal dañ ne dafa mel ni danga jël benn nit nga teg ko ci pool yooyu di ko saaf ba mu ñor nga tiim ko di ko lekk noonu la jëw mel jëw wenn yiw wenn yiw amu ci ci nit te yow li ngay jëw yaa ngi jël sa yu baax di ko jox kii ngay jëw moom muy jël sa yu bonam di ko sippi am na benn waaye boo xamante nii dañ koo asanul basri ko waxoon ne ko yaa ngi jëw sa mu ne ah man de jëw suma ma ko doon ba di ko def sama ndey laa koy def wala sama baay ndax yiw wi ci nekk sama ndey rek laa ko yéen ak sama baay am na koo xamante ni waxtaanam pour mu neex jëw dong la jëw te jëw dafa bokk ci araam dafa bokk ci yi nga xam ne jëw dafa dafa araam am na koo xam yàq as gor as gor am na koo xam ne bëggul kenn kenn ko baax kun ko taggal ci àdduna na ko dafa baax jikko yu baax la ma woon mu ne déedéet danga koo xamul jaral na ko dem wuti beneen xabaar pour jox la ko pour yow yàq sa xel dindi sa fi nga ko tegoon ak fonkeel gi yépp wan la ne la kii wax ma ngi nii tuumaal ko tuuma joo xamante ni kenn kenn kenn xamu ko nu ko fu jikkoom yàq ab fameem yàq askanam ba dootul xajatu ci àdduna li àdduna yaatu yaatu day mel ni asamaan si day bëgg a wàcc ci kawam ndax yàqu nga as gor am na ñoo xamante ni dañuy jël nit ngir mu leen di yàqal a nit mu leen di yàqal as gor loolu mooy liggéeyam boo gisoon diw sàngam di ci kooku da boo la ko jàppaloon wala kooku da bu la ko waxaloon nga xam ne am na ñoo xamante ni dañuy dindi di fay ci loolu ba ci journaliste yi am na ñoo xamante journaliste sax nit ki mën na la ah de waxal lu baax waaye dema xasal di sàngam yàqal ma ko waxal ma ko nangam nga xam ne danga koy yàq yàqeet yow li ngay wax seetoo ci yàlla seetoo ci dara te moo ne nit ñi de koo yàq àdduna mu yàq sa àllaaxira loolu ngay lekk te dara jële woo ko lu dul yàq nit lu dul yàqal ma nit lu dul bañ nit lu dul nit damaa ëppale wala nga kii ko loolu mooy seen kir am na ñoo xamante ni moom danoo iñaan maanaam iñaam kenn kenn kuy am teraanga ci seen kanam amul kenn kenn kenn kenn kuy am teraanga ci seen kanam amul koo xamante ni foo gis ko am ay yëf yu ëpp sa yëf nga daal di fàtte sa yëf yaa manqué manqué kañ la ko am oto dañ ko dafa am oto bu bees fan yi am waaw jaar moom xanaa day def nangam xanaa daa gisanteeg état bi wala day def kii fan la ko war a jëlee la xamul ah man de jaaxal na nga xam ne yeewu dara dara nit sax bu solee mbubb mu rafet wala ay dàll nga ne ni ko am na ñoo xamante ni ñaane nit sax barke bi mu am ak wërsëg bi dañ ko koo def kooku nag day sonn ci àdduna am na ñoo xam ne seen mbir mooy agent secret dikk déglu nit fexe ba xam te ñooñu kat nee na ëllëg yëmal xayaam ñi njëkk a dugg sawar agent secret yi la ñi doon def agent secret di agent secret wu nit di ko yëddoog di fexe ba xam dara dem nettali ko wala nga dem def ko dara kooku mooy ki nga xoolal tey ñaata ojo koo xamante li muy liggéey jël ojo yi nit wala ay vidéo yi nit yoo xam nit da caa wax lu ñaaw wala nit da caa juum wala dañ caa jàpp nit wala matadik nit yow yooyu mooy sa liggéey sa métier. maanaam nit ñi daal booy seet boo ko doon wax danga naa daf mel ni oto bu paan oto ni oto mel ni la nit ñi mel am na ñoo xamante nii jëw moom lan paan seen oto moteur bi jëw moo ci paan am ñoo xamante ni fen moo paan ci biir moteur am ñoo xamante ni eh, yàq askor gor moo paan ci ñoom am ñoo xamante ni jibar ab jibar moom du dugg àjjana moom jibar jibar du du am li muy wut fii ci àdduna du ko am àllaaxira yonante bi sallallahu alayhi wa nee na nit koo xamante ni dem nga ci ci jibar yow mu wax la nga xam ne da ngaa dalaa wax rek gëmoo ko nee na ñeent fukki fan wala ñeent fukki julli yoo xam ne doo jullee suñu borom du nangu julli ko boo demee nag boo gëmee li mu la wax moom yow rekkiku nga ci diine lislaam génn nga ci diine lislaam jeneen diine ngay jamaat boobu moo nga yeesalaat bu fekkee bëgg ngaa duggaat ci yeesalaat ñaata ñooy fat ay jibar ñaata ñooy far woo ay jibar jële leen dëkk ak dëkk réew ak rëkk ak réew moo tax yenn saa yi président Macky Sall bi dama koy xool dama koy yërëm damay xam ne li ko séq ci nit ñoo xamante ni xaaw takk sëf gas def lu nekk lañ koy def ngir rek seen bokk Ablaye Wade waxoon na ko fi nee na jaaro yi ngeen di takk yëpp man ngeen ci sol moo tax yenn saa yi ngay yërëm président mais da xam ne lii ñuy def ni du yéeneem ndax nit ku nu fal am na yéene te boo ko xamee dëgg-dëgg boo wéetoo nag moom xam naa ne bu buñ la ko waxee xam ñi ko xam dëgg-dëgg dangay wan ne lii muy nekk lu lu lu mu tayut la rek wala loo xamante nii ay nit a ko ay nit a nekk ci ci wetam rek di ko di di ko di ko di ko kii rek ndax koo xamante ni ay nangami nit ñoo xam ne ñi ngi toog ci sa wet nga xam ne seen daanaka seen intérêt la bàyyi ci moom bëggalun la lu baax sax yow lun la mënal ci saahir ak ci baatin ñi ngi koy jéem moo tax yal na ko yàlla dimbali ba euh, li mu yéene ci réew mi ndax jàpp naa ne yéeneem war naa rafet daal lu toll nii ku teraanga ju toll nii amul kenn ku ko yàllay defal nga am yéene joo xamante nii rafetul xanaa ñu nekk ci sa ginnaaw di la yàqal rek am na ñoo xamante ni maanaam maanaam jikko ji yées leen yor xaj xaj maanaam xam nga ne am nga loo xamante ni boo nee bandi ne wëyu boo nee euh, nu mu tuddati guddi ne bëccëg boo nee euh, saw ne penk boo nee baax ne bon waaye boo ne xaj amoo dara loo ci tëgaar xaj moom mooy xaj li yées daanaka rek xaj jikko ji bon la am na koo xamante ni moom day yàq nit day wax yàq nit ba ku faatu nekk ci bàmmeelam nekk ci biir bar sàq da koy yàq am na koo xam moom làmmiñam moom kenn mucc ci moom amul kenn ko ci mucc waaw bu ñu demee ba réew mu mel ni ñu bëgg koo defar te ñii may wax ni fi mu toll bu dee tedd ci wàllu àdduna ñoo ko gën a def ñëpp ndax ñii rek ñoo fi féex gor yi kenn féexatul dañuy làqatu guddi dañuy làqutu bëccëg ñemeetunoo génn ñemeetunoo yëkkat seen kàddu bu demee ba as gor ak nit ku baax ñemeetuta yëkkati kàddoom ci réew ñemeetuta wax ñemeetuta dox ci public ñemeetuta wax euh, dëgg ñemeetuta wax wiyam kooku réew mu yàqu la mi réew ku ko mën a defar jikko yi nag dafay fees dell dell dell dell kenn jëggaaniwu ko fenn jikko yi ñu dafa fees dell ci réew xoolal ñu nekk bitim réew amuñu dara lu ñuy def lu dul yëkk seeni mag yi réew ñoo xamante ni fii lañ nekkoon seeni baay fi lañ leen ngénte seeni yaay fi lañ leen ngénte fi lañ leen tudde fi lañ leen dalale jàng ba nu jàng fi diine bu nu demee ba génn seen diine pour ñu xam ne am nañ diine muy xas mag mag ñu baax ñu fi nekkoon ay gor ñu jeexal seen dund gépp ci diine amoo dara looy def ñoo la takk sa ndey takk sa baay defal la lépp sëñ bi amoo looy def lu boo génnee di leen xas xoolal ñi nga xam ne doonoo tukki ñu ne xaw ma ay lan lan saaga ay gor ay sénégalais rek benn ñaawteef bu génne ci beneen réew dund ko indil xanaa ñoom bu nu doon indil ay ñaawteef réew ya nu nekk réew yu ko ëpp ay ñaawteef amut xanaa ñaawteef yooyu boog lan waroon di wan ñu ne ah, ñun de ñaawteef yi am na ci waaye ñun sunu ñaawteef réew la ñuy dikk di ko sulli si di fen guddi di fen bëccëg waaye nag bis a ngi ñëw bis boo xam ne billaahi wallaahi taalaahi mënu leen a mucc ci bis boobu mënu leen a mucc ci bis boobu kuy wàññi awraw nit kuy ñàkk suturaal nit képp koo xamante ni yaa ngi jéem a tuutal gor yaa ngi jéem a yàq nit yaa ngi nekk ci loo xam ne neexut yàlla neexut yonante bis dana ñëw guddi gi njëkk ci bàmmeel nga tëdd ci li nga xam ne lépp lépp lépp dëgg la guddi gi njëkk ci bàmmeel ku ko dut xalaat lu la neex defal loolu la sëñ Sàmbay waxal ku ko dut xalaat lu la neex lu la neex lu la neex defal lu la neex waxal bis boo xamante ni amul kenn kenn benn intervention buy ñëw benn intervention foofa doom amu fa njariñ baay amu fa njariñ xaalis amu fa njariñ lu fa am njariñ ak jub ak jub moo fa am njariñ yonent bi sallallahu alayhi daana wax ni képp koo xamante ni téyel na ma làmmañam li nekk ñaari tuñam ak li nekk ci ñaari eh, poojam ma warlul ko àjjana mooy sa làmmañ ak li nekk sa ñaari pooj mooy sa awra am na ñoo xam yu bon yooyu xalaatuñ ci lépp la ñuy def waaw réew mu mel nii ku ko bëgg a defar ban problème mooy njëkk doon sa problème fan nga war a tàmbalee fan nga war a jeexital fan nga war a mujje réew mi bu mënoon bu meloon ne ay panaal ñuy naaw ci kaw jaww ji di di lekk ci kaw jaww ji naane ci kaw jaww ji di def guddi ak bëccëg te jikko yi nekk fi yi jikko mënta wommat kenn yóbbu ko àjjana yi jikko réew mu mu nekk wommat nit ñi yóbbu sawara la jëm te du bàyyi mukk lu cëppeeluñu ca xuruj sawara yi du bàyyi kon kuy defar réew mi jikko yi ci nga war a ci nga war a wee jikko yi nag ñi fi nekkoon loola moo doonoon seen objectif moo doonoon seen guddi moo doonoon seen bëccëg dafa tabax ay réew néewul tabax suuf ak tabax ay réew ñoru leen woon li leen ñoroon tabax ay jikko la woon mbokk ñu ngi ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine te may nu wërsëgu yaatu may nu mujj gu rafet asalaamaaleykum wa rahmatullahi